ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonant bi ñu ngi euh, nuyu mbokk Tiwaawan yëpp di ci jiital sunu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ci teg rakkam porte parole Serigne Abdou Aziz Al Amin ak euh, rakkam yëpp ah, tey dañu fee daje woon di waxtaan dañoo daje woon tey di waxtaan ngir préparer màggalu Touba mu nekk loo xam ni mën naa ni lu bees la ndax ku ne xam na ni euh, Tiwaawan ak Touba dafa am ay diggante yu dëgër dëgër yoo xam ni moom moo leen boole yàlla dogal ki nga xam ni moom mooy sunu wasila di sunu sëriñ sëriñ Abdou Aziz Al Amin di ñu wax bis bu ne li nga xam ni moom mooy bëgg-bëggam mooy njabootu lislaam yëpp ànd bokk ndey bokk baay lépp lu ñuy def ñu bokkandoo ko te ku ne xam na ni. màggalu Touba mooy événement bi nga xam ni moom moo gën a mag ci agenda wu sunu mbokku taalibe murid yi loolu moo tax ñu ne dina rafet kon ren jii ñu commencé ànd ak ñoom ci événement boobu nga xam ne moom la ñuy def gunge leen ci ba nga xam ne jullit yëpp dinañ xam ne ñun topp nañu li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg sunu ay kilifa mooy jàpp Sénégal ñëpp ànd bokk ndey bokk baay. loolu moo tax tey jii ñu daje woon fii di réunion pour waxtaan. ngir xool nan la ñuy mën a fexee màggalu ren gii ñun waa Sopayal Amine ñu dugal ci suñu loxo bu baax a baax loolu moo tax ñu ne incha allah dinañu jàpp ñaari bés muy alxamis di ajuma a ah, gàttandu suñu mbokk murit yi nga xam ne ñoom ñooy dem màggali séddale leen ay ñam jox leen café parce que ku ne xam na ne ab murit kafe mooy essence am jox leen ay ndox ba ñu xam ne ñun bis bi ñoo ànd ak ñoom bokk ko ak ñoom coono bànneex bi nga xam ne moom la ñu ciy daj ñun aussi ñu xam ne ñu ngi koy partagé ak ñoom loolu moo waral ñu ne bu soobee yàlla alxamis ak àjjuma ñu ngi woo mbokku jullit yépp ñu ngi woo sunu mbokku tijaan yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Tiwaawan dëkk Thiès dëkk Kébémer ak ñi nga xam ne ñépp ñoo dëkk ci yoon bi ñu génn gatandu gan yi gunge leen ndax ku ne xam na ne sëñ Touba ak Alaaji Malick ñoo bokk lépp ku ne xam na ni Euh, Serigne Cheikh di Makhtar ak sëriñ Cheikh Ahmed Tijani ñoom ñoo bokk lépp donc lii seen bëgg-bëgg mooy Tijani yeeg Murid yeeg Xaadir yeeg Laayeen yeeg ñëpp àndandoo donc ñu ne nañu profité ren ci occasion bi ñoo fekk si leen ci loolu nga xam ni moom mooy seen bëgg-bëgg. waaw dañoo seetlu rek ne adduna bi dafa am ay mutation yu baree bëri yoo xam ne mu ngi fi xew mooy tey boo xoolee dëkk yi ñu wër fu ci ne mu ngi yëngu surtout nag ci ñi nga xam ne mooy sunu mbokku jullit ñi te loolu ñun suñu seetlu mooy li ko waral mooy dafa am ay valeurs yoo xam ne moom moo am fii Sénégal te xëy na manqué ci yeneen dëkk yi mooy dégg ndigal delloo sa njukkal sa kilifa ñu ne kon fi mu ne nii jot na ñu àndandoo fexe ba valeurs yooyu ñu fexe renforcer ko ndax loolu moom mooy li nga xam ne jàpp nañ ne moo sauvé Sénégal ba lu baree bari lu xew ci ay dëkk yu bari xewu fi donc ñu seetlu tamit ne ki nga xam ne mooy sunu wasila muy Serigne Abdou Aziz Al Amin ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi koy gis muy daw te lépp lu ko yitteel mooy lu jëmale Tiwaawan kanam lu jëmale xadara Sidi Hadj Malick kanam kon ñu ne ñun jot na ñun tamit ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu def ci sunu contribution bay ci sunu waar ñu tànn Serigne Abdou ndax njàmbaaram ndax taxawaayam. représenté fi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay baayam représenté fi ñi nga xam ne ay ñoom ñooy ay magam taxawal fi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay rakkam ñu ne kon ku mel nii jar naa jàppale ngir mission bi nga xam ni moom la ko xadara bi dénk moom la ko Sénégal dénk mu réussir ko ñu gunge ko ci loolu. ah pour le moment bi ñu taxawalee suñu association bi ak léegi yàggul mais fexe nañu ba événement yi fi jot xew yëpp dugal nañ ci suñu loxo ba jiitu woon. mooy gàmmu abraar bi nga xam ne moom la ñu dippe sëriñ Abdou Aziz Al Amin muy suñu wasila euh, dugal nañu suñu loxo aussi ci assura bi nga xam ne moom moo paase. dugal nañu suñu loxo aussi organiser journée de solidarité keroog bi nga xamee ne sëñ abdu waxoon na ni jour laylatu xadri occasion la pour ñëpp feddali seen ànd ñëpp feddali seen solidarité boobu aussi fexe woon nañu ba dugal ci suñu loxo en tout cas événement religieux yi fi jot jàll yëpp bu ci nekk. fexe nañu ba soppeel amin ñëw manifester seen solidarité ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko doon organiser ba yàlla defal ñu ñun suñu bopp réussite parce que xam nañ ni taxawaay bi nga xam ne moom la ñu suñu wasila demandé ñu ngi koy def biir Tivaouane ñu ngi koy def biir Sénégal. Euh, fii may wax ak yow nii dégg nga ni ñu ne ci màggal gi am na point boo xam ni ñu ngi koy defee Kébémer te loolu du ñun ñoo jóge fii dem di ko fa defi parce que dafa am antenne boo xam ni créé wu na fa. am na ñoo xam ne ñu ngi dakaar boobu ba léegi ñu ngi ñuy woo pour ñu def ak ñoom ndaje def ak ñoom réunion pour ñoom tamit ñu defal leen cellule bu yàggul secrétaire général bi vieux Camara mu ngi may wax ne ma waa Dagana aussi ñu ngi woote ne ñoom tamit dañoo bëgg ñu monter leen cellule Thiès xëy na li mu jàmp la ak euh, événement bi nga xam ne moo nekk suñu kanam mais ñoom aussi ñu ngi am bëgg-bëgg ñu defal leen cellule donc ci gàttal li nga xam ne moom mooy suñu bëgg-bëgg mooy association bi daj wër Sénégal ndax ku ne xam na ni sëriñ Abdou Aziz Al Amin ay soppeem ñu ngi fépp ku ne xam na ni sëriñ Abdou Aziz Abdou Aziz Al Amin ay soppeem ñu ngi fépp ci àdduna bi bu yàggul am nañu sax ñoo xam ne ñu ngi nekk Paris nee nañu ñoom aussi am na ñu bëgg-bëgg monte benn antenne boo xam ne dañuy yaatal association bi biir Europe gi yépp. Euh, pour le moment dañu ne comme seetlu bi ñu def mooy ñi nga xam ne ñi ëpp ñooy dem Touba ku ci jaarul Thiès Tivaouane ngay jaare wala nga jaare Kébémer loolu moo tax ñu ne ren comme mooy suñu première édition dañ koy fexe yamale foofu bu ko defee at yii di nga xam ne ñoom ñooy ñëw nag ñu fexe yaatal ko fépp ci réew mi mais ren Thiès la ñu ciblé parce que am na ñoo xam ne ña nga fa déjà bëgg monte antenne mais pare nañu ñoom aussi pour monter euh, organiser journée bi foofu fii Tiwaawan fi la ñu dëkk fii mooy siège association bi kooku moom kenn waxaalewu ko Kébémer ña nga xam ne aussi ñoom ñoo fa monter cellule ñoom ñoo koy defal seen bopp ñun bës ba dañuy ñëw rek gunge leen superviser leen ànd ak ñoom li nga xam ne même mooy contact yi ñuy def ak presse bi ñoom ñoo koy defal seen bopp. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp ci turu soppey Al amin di ziare ñëpp di woo sama mbokk jullit yi. ak sama mbokk jigéen ñi ñu ñëw jàpp ci bis bi donc mu nekk benn distribution bu ñu war a def jàppe ko ci màggal gi indi suñu ndimbal suñu participation ci màggal gi donc association Soppey Al mi ngi woo jigéen ñëpp ñu teel a génn wax dëgg yàlla ñëw à temps jàpp ci liggéey bi ne ñëpp génn ñu jàppale góor ñi wax dëgg yàlla association bi am réussite ci li mu bëgg a def donc ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp bu bis baa ñëpp am wér ak kàttan ak man man ñu teel a génn jàpp ci bis bi donc jublu si liggéey bi def si li ci war lépp ñu def ko ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc yàlla nañ fa yàlla yóbbu jàmm ñoo ngi woo tamit jeunesse bi ñoom it ñu taxaw jàpp bu baax ndax tamit am na loo xamante ni jeunesse rek moo ko mën donc kàttan bi ci jeunesse bi la ëppee ñi ñaan ñëpp ñu taxaw ci donc ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla wàcce ci jàmm wàcce ci réussite ndax loolu lañ ciy wut ndax liñ ci gën a wut mooy ñu diggante tarixa tijaan ak tarixa murit ñu gën a ratax donc ñi ñaan yàlla tur bi di soppe al amin tamit comme xam que ni moom it ci loolu la euh, bi nekk muy jubale taxaw lépp nekk benn donc yàlla nañ yàlla defal réussite ci bu boobaa donc ñëpp taxaw lépp nekk benn asalaamaaleykum wa rahmatullah